asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen waa as yi ñoo ngi leen di nuyu di jot li nuyoo bi ci mboolem ëtti daara yi suñ daara yi ak waa daara ak yoonu murid yëpp ak jullit yëpp ci ndam li nga xam ne daara amati na ko jullit yëpp am ko. waaye nag muy ndawul ndamul sëñ Tuubaa di ndamul Tuubaa waaye yàlla defit mu ne ci quartier bi Sëriñ Souhaïbou daara ji di Madiyana ki yor daara ji di jàngale di taalibe sëñ Tuubaa yàlla may ko ci ndam lii mu ko ci may mu mu jiitu ci coupe du loolu yaakaar naa ne taw feex la yoo xam ne ndam la loo xam ne ñépp dañ si réew dañ ci ndam moo tax may jottali ay kàddu di ndokkee sëriñ Seexuna si mi ko jàngal ak soxna si ci boppam soxna Ndate ak mboolem waa daara ja ak mboolem waa daara ak fa yi bi ne ñu xam ne moom loo gi suñ borom moom loo sëriñ Tuubaa alquran waxtu wu ne day gën a feeñ waaye feeñati na tey bi ma ko yëgee rek dama ciy bégg bég ba barab bi ma nekk ci Makka dama ci am mbégte mu rëy rëy rëy ak yëg-yëg bu ma ci amaat ci sëriñ bi ci diggam ak boroomam diggam ak sallallahu alayhi wa sallam diggam ak alquranul karim di ñaan rek ndam li yàgg am te sax fi te loolu yaakaar naa la sax ndax alquran ju dëggu ju wér joo xam ne koy bopp bind ko ci ay kaamil buñ ko doon wuti moom jàpp naa ne kenn du ci appelé Touba wala moo ci jiitu ñëpp te loolu na waaye mën a mel rek nangul ko ko Touba ndax xam nga ne lu fis la lu kenn mënut dara kon nag moom doonatu lu ñuy waxal kenn lu ñuy gis la lu ñuy teg bët la yaakaar naa ne lislaam ku ci tabax jumaa yi mu tabax ci kanamam jumaa yi njaareem digle ñu defal ko jox ji ak njabootam defal ko ba nag ni loolee di dox bañ defal ko jumaa Ndakaaru ji tubaa am téeméeri téeméeri jumaa ak téeméeri junne jàkka ak lu topp dëkki murid yëpp ami jumaa ak jàkka di boole jàngale ak liggéey ak yare loolu yaakaar naa ne nooy mën a mel teg ci sa te pexe amu ci loolu nag doy na sëkk lislaam ku ci féetewoo alxuraan féetewoo ci jàkk fonk ramadaan féetewoo gàmmu daa ci def loo xam ne kenn mësu ko cee def bind ci loo xam ne kenn mësu ko bind te at mu ne nga at mu ne nga warlul ko siirab boppam bi nga def ren ji du bokk ak ba ngay def déwén nga xam ne bor la bu mu warlu digg mag yonent bi salaam kooku bu ko yàlla fayee salaam salaam fay ko ci li mu ko mu am ndam li ci alxuraan lu mu yeyoo la loo xam ne du bett kenn waaye nag dañ koy sant yàlla du ndam rek waaye dañ koy sant suñu borom di gën a sant suñ Tuubaa bu baax a baax a baax te sant yàlla ci booleeg suñ Tuubaa te yàlla nangul suñu tey di ci jaajëfal ñëpp rawatina waa daara jërëjëf